xalifa bi génn gi mu génn am na solo en tant que booy génn lu mel ni man ngay wax waaye tamit pour nga am yenn information yi tamit lu am solo la pour bala ngaa wax ndax député tey seen rôle ak seen taxawaay ñi ngi koy doxal ci nuñ ko mane mais nag dafa am foo xam ne seen doole yem état bi nga xamante ne nguur gi tudd Macky Sall moo ko yilif moom moo war a jël ay responsabilités wax ak école bi jël tamit li nga xam ay mesures la mais député mënut jël ay mesures ci kaw gouvernement wala ci kaw école boo xamante ni école privée la euh, loolu mooy li nga xamante moom laa jàngat en tout cas ñi ngi si tey jii mooy dernière réunion bi nga xam waroon ko def pour kaw waxtaan bi mën a continuer

sénégalais war am am xam-xam di fay di fay senum njàng yoon def na li nga xamanteni tay moy constitution bu rew mi dañ ko war respecter ndax ministre bi ak président de la république mo jox agrément école bi agrément bobu fekkante ni mom li nga xam mom la si def mom respecte wu ko mais nañu nang agrément bi tej école bi wala aussi tamit ñu jéem xol état bi nan lay mëna def ba def ay école yo xamanteni eh, nit ñi mën di jang ba problème yu du amati ndax mun ñu rek ni école chrétien rek ñom ñoo yéré njàngum baax mais ana école musulman yi mais pourquoi les yi def comme chrétiens yi ay école milliards yi nga xam kilifa ñu ko day fait ko seen yi di def ay mais pourquoi ils ko eh, eh, éducation bi depuis ba mënut a investir ay école yoo xamante ne yu doy la pour xale yi mën a jàng loolu ba amoon tey ji li am ñi du am liñ jéego lañ si def mooy waxtaan ak école bi wax ak ministre bi xamal leen ni leen suñu suñu suñu réew dañu am suñu indépendance bi ngeen fii ñëw ñu leen di jox agrément dañ leen a wax ne leen lii ak lii ak lii moo ne si constitution bi dëkkul laïcité la laay laïcité nag kenn ku nekk am nga sañ-sañu pour pratiquer si diine diine bi nga xamante ne moom la ñu yor ñoom muy islam ñi ngi muur mais muur ñu seen xar kanam tey ña fa nekk ay chrétien tey ci école bi bu ñuy dugg dañuy muur def takk seen courant mais pour pourquoi ñu aayewuñ leen ko kon damaa defa ni li naan bukki buy dabee waxambaane ci doxin bi la état Macky Sall moo faible état nag bu faible lépp loo xamante ni tey lu jóge si bitim réew day ñëw da koy teg maam day nekk ci kawam. islam moo tum ranke ndax tey kilifa diine yi du moom dong moo fi nekk ñëpp war a wax.